واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأمر من لساني يفقه قولي موك جل الأمي جامي سبسيال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بي سنتي يالا دولي سنتي يالا بوبا دي سنتات يالا مي مي كاتن مي نفيكي بندي لسوادي دفتاني فجر ديو الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما أبداً alhamdulilah kasiran alhamdulilah ala kulli xaalin mooy ñu ngi sant yàlla sant bu amut ab amut waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaabaami ak képp ko am yaa ngi topp sunnaam bi yawmal qiyaama ñaan yàlla ñu yàlla boole si ñoom waaye yàlla xëy jaam indi ko fanaanoo ko yàlla mi jaaman yàlla ñu yàlla fa jaam yokk ñu sutura yokk ñu kàttan ñi feebar nekk ci kër nekk ci lopitaan bi waaye nekk jéeg jaamu sa yaram yàlla na yàlla saafara yàlla yàlla di sago yàlla ñu yàlla boole may aafiya yàlla ñu yàlla boole may aafiya waaye julli di julli àllaaxira yàlla yërëm leen yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdat min riyaadi janna njaboot bi yàlla sàmmaleen aar leen laxale ku yaay yàlla warsagaleen xam-xam warsagaleen liggéey warsagaleen àndandoor yu baax jigéen yàlla sàmmaleen yàlla defal ñu xéewali àdduna xéewali àllaaxira muccal ñu safara mbokk ñu ñu waa fii si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu continuer si suñu risaala bi nga xam ne moom la Cheikh Muhammad bun Abdul Wahab rahimahullah ñu ngi woon si charte bu njëkk bi mooy al islam lan mooy islam mbokk julli suñu islam lan mooy islam islaam lan la tekki wala lan la islaam miin maana al islaam istislaamu lillahi taala bi tawxid mooy ne nit ki jébalu yàlla subhaanahu wa taala jébalu si yàlla subhaanahu wa taala jébalu tawxid buñ ne tawxid nag mooy kennal yàlla de donc li nga xam ne moom rek lañ war di gën a waxtaane pour nit ñi xam li nga xam ne mooy defar seen diine ba tax ñu laa wan ne yow julit nga waaw islam bi ngay oote pour mu mun a wér si yow mooy ne yow dangay jéebal sa sa borom sa bopp si sa borom si li nga xam ne mooy tawxiid mooy kennal ko waaw bañ a bokkaale shirk nga xam ne dafa bari si suñ làmmiñ bari si suñ jëfin te ñu bari duñ ko dee bàyyi xel waaw loolu te yëpp lu ko waral mooy ñàkk xam li nga xam ne mooy tawxid mooy kennal yàlla subhanahu wa taala mooy wa inqiyaadu lahu bi taa mooy ne gannaaw bi nga jébale sa bopp yàlla subhanahu wa taala waaye nag nga saxal sa bopp si jaamu yàlla moom dong nit ne jaamu yàlla jaamu leneen waaw te loolu su ko defee rek yàlla sa jaamu yàlla boobu yàlla amatu si soxla yàlla soxlaatu ko ndig lan yaa ngi boo yàlla ak leneen wa xuluus min ashirk wa ahlihi waaye tamit war ngaa mun a soo gisee ñu ne islaam yow war ngaa mun a setal sa boppa si lépp loo xamee ne shirk la la nga ne man de du ma ne su soobee yàlla ak diw loolu dafa bari si ñun benn jamono si jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn saxaaba wax ko yonent bi ne ko su soobee ak yow yonent bi ne ko ne ko toog bul wax loolu waxal ne bu soobee yàlla donc yàlla doro tey nag ñun nga defal ni diwa yàlla diwa ma def lii yàlla diwa tax lii subhanallah yàlla ak diw ana kooku nga ko mun a emale ak yàlla yàlla su nit ki muccee si lim muccal yàlla ko muccal nit su amee lim war a am yàlla moo ko ko warsagal ndik warsag nekk si loxo doomi aadama warsag si loxo yàlla la nekk bu nit ki am nga ne ko bu leen ko doon di yàllaa diw yàlla nay jël war warsak jaarale ko si nit nga am ko si moom waaye nag sabab ba fan la jógee yàlla subhanahu wa taala moom moo sabab pour loolu ñëw si yow ndik yàlla du wàcca du ñu jox si suñ loxo yi waaye dafa am fu mu ko jaarale nit ki nag mu ngaa ne ah gannaaw dimbal yàlla de diw aha waaw gannaaw dimbali yàlla ah diw loolu islaam nangu na ko waaw parce que diw moomu def na dara loo xam ne tax na ba doon ut am nga ko waaye yàlla moo ko jaarale si moom soo loolu nag moo mun a tax nga sant yàlla santan kooku loolu tax mu ne man laa yashkuru naasa laa yashkuru llah ku sant doomi aadama yi doo sant yàlla parce que lii eh, jëf boobu moom moo laa mun a tax nga sant nit ki waaye bul ne bu nekkutoon di waa yàlla yàlla di dafa kii de si ndimbali yàlla diw taxaw na ma diw dimbali na ma diw jàppale na ma ah kay soo nga gërëm ko ci gërëm yàlla ba tax mu ne ku dul gërëm doomi aadama yi doo gërëm yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa loo xam ne daf koy jox rek am na fu moo jaar ba tax na eh, tawxiid mu ñoo jàngal mu xuluus min ashirki wa ahlihi pour ñu ñëpp loo xam ne dafa si boo bokkaale rek dañ war a góorgóorlu ñu jeexal si soo buggee nekk julit dëgg lu tax ñu ne islaam ki ki boppam si yàlla subhanahu wa taala lu tax ñu jël bu ne muslim ki ne muslim la maanaam ñu ko jullit si si suñ laaka li annahu mustaslimun parce que lu tax ñu ne ko parce que dafa jébalu boppam si yàlla subhanahu wa taala waaye tamit toppal li nga xam ne mooy charia yàlla bi waaw yàlla ne akañ ah, def leen ñu def yàlla ne lii dafa xaram bàyyi leen ñu bàyyi lii mooy charia charia dafa ñëw pour jël doomi aadama yëpp teg leen si yoon jël doomi aadama yëpp muccal leen si li nga xam ne mooy mbugal lu tax charia boobu nag yàlla subhaana taala wàccee ñu ko waaye nag mooy ñu toppan ndigal yàlla bàyyi tere mi waaw fal muslimu mustaslimu lillahi laa li xayri parce que julit dafay jébalu si yàlla waaye du jébalu si keneen ñun nag bari ah, man de jébalu naa si diw subhanallah njumte bu mag la mbokk jullit njumte bu mag la nañ si bàyyi xel jullit si kan ngay jébalu yàlla mi nga xam ne moo amee sa bakkan mi nga xam ne moo amee sa dunda yàlla mi nga xam ne moo amee sa warsak yàlla mi nga xam ne moo amee sa yëpp boo nelawee dee nga yàlla moo la dekkaliwaat nga jóg si sa nelaw boobu ñaata nit ñoo nelaw continuer àllaaxira wala continuer barsax ñaata nit yow nga jogaat ndax yow sax ka nga jeebalu kooku mun na kooku ba nga nelaw ndax yëg na yaa ngi nelaw ndax kooku mun naa ñëw eh, delluwaat sa ruux bi génnoon si yow bi ngaa nelaw ah acha wa kalla loolu munta ne loolu munta ne bon nit ki booy jeebalu dangaa jeebalu si yàlla subhanahu wa waaye di si benn doomi aadama di kooku kooku dafay nelaw ni yow dafay xiif ni yow dafay mar ni yow dafay feebar comme yow dafay am soxla comme yow macha soo soo ko soo jébalu si moom lan la la mun a defal bon lii mooy tawxiid lii mooy tawxiid mooy kéenal yàlla subhanahu wa taala mbir yëpp waaye nga xam ne la mooy kii bokkaale mooy ne dafa ne yàlla ak diw waaw waxtu bu nekk rek buy tudda yàlla am na keneen ku moo xam ne moom la moo teg fële tamit ne kooku tamit si yaakaaram yi la bokka te dafay dafay oote boppam ne jullit la waaye nag li moo def shirk la bokkaale la te bokkaale dafaa génne ni ki si diine bokkaale daf lay si islam doo nekkaati jullit bu dee yaa si daf lay génne te ndeysaan am na ñu bari ndey si ñun ñu ngi julli di oor te la ñoo def yëpp génne na leen si diine bu yàgga kon loo tax waxtu bu nekk rek di ngaa gis saxaaba yi nga xam ne duñ bokkaale sax duñ def shirk ñu si tawxiid waaye dañoo jékki-jékki rek ne acale ñu béy salaat suñu ngëm-ngëm suñ tawxiid la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nit laa loolu soo ko waxee rek delluwaat nga si islam laa ilaha illallah muhammad rasulullah boo ko waxee rek xakañ ah de salaat nga sa sa yàlla subhanahu wa taala nit yéefar bi nag ki wéet yi nag dafay jaay jaay rëy tax nag si réyam boobu du kéenal yàlla si réyam boobu dafay bokkaale jaamu yàlla am tamit nu ko neexee la koy defee waaw ko waxtu waaw am wax yoo xam ne su ñëwee mu def si alal bu réer réer te loolu fa mu jaabe ko jaamu yàlla fekk nekku dara dara dara si diine waaye li nga xam ne mooy xaqiqa mooy réalité diine bu wér su loolu jotee mu ñàkkal ko fayda wéeru ko du ko faale du oor aj xelaatu pour aji xelaatu pour dem maaka waaye yeneen ne su ne ah acca la ñu dem bërëb bërëb nangam wallahi nga gis jàmbar yaa génne alal génne lu nekk pour ñu ne diw moo joxe alal bi di moo joxe alal bi si loo xam ne yëpp yëpp yëpp amul dara lu moo def si te faa nekk sax bidaa la moo doon waaw te yéen saa salaam mu ne kullu bidaatin dalaala mu ne bidaa boog bàyyiwul de bàyyiwul benn de lu tax ñuy wax bidaa bu rafet am na xam ñu ngi di wax yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ngi di wax yonent bi alayhi salaam ديك ونن كل لوا كل سيراب بايوت بنداو باب بمك باب فين باب فين يب بنا لا كل بدع لوا دلالة تفرير وكل دلالة في النار ترير في موي ببور من موي سفر يعني يعني مسازي لولو ولكن بوكو جولدي أصل الدين الإسلام شهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة waaw li nga xam ne mooy cosaan buy dugal nit ki si islaam si diine mooy nga seede ne yàlla subhanahu wa taala kenn la waaw kenn la waaw benn de kenn and then nga seede ne yonte la muhammad salaa sallam yàlla ko yónni lii su ko doomi aadama waxee rek jullit la su ko doomi aadama yi waxee si ko si xolam rek nekk na jullit waaye su su raxee leneen rek yax na jullit yaayam yàlla ñu yàlla woon tawxiid